fii la jullee tisbaar moo fi jiitu Baye Modou Diagne xanaa dañuy jox imaam mu indi ay kàddu Baye Modou Diagne ñaanal mbooloo mi moom day yeewiku programme bi continuer bu nga xam ne buñ jógee foofu nag sëñ kàllaam nag mooy dugg si bu duggee nag wax ku bëgg a dem maa yomba nan ngay def ak fan ngay jaar ba mën a dem maa yomba leeralal leen ko ba mu leer nàññ bu ko defee bu kàllaam daana leen jox sëñ jiili Dramé sëñ Jili Dramé bu jàngee am na ñeneen jànkat yu fi teew ñëpp ku nekk di nga barkeelu ndax dañoo bëgg yóbbu kaset bi Gabon waa Gabon ñëpp gis ko ku nekk nga fenc la hawla wala quwwata illa billah al alil azim hasbi allah la ilaha illa wa huwa rabbul arsil azim ginnaaw sunu borom tabaraka wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di jël suñu nuyoo ak suñu siyaara ak suñu ñaan di ko jagleel suñu sëriñ soxna maay sa Mbakke ñu koy siyaara bu baax di ko ñaanal subhaanahu wa defal ko jàmm di sant suñu kilifa yi fi nekk yëpp rek bu ñu tuddee ay tur dana am ñun bàyyi waaye kàddu yi di sol rek lu kàddu yi soññee ci liggéey bi nga xamante ni ñi ngi koy wax ahlu xayba xaybatul bahriya ñun noonu lañ koy wooye sëñ Cheikh Mbacké muy ñi nga xam ni dañoo jóg ngir yombalal jaar-jaari xaadim rasul li ko tàmbalee fii ci Daaru Xuddus ba fi mu jaar fépp ba ca dëkk bi nga xamante ni fa la def juróom ñetti at yu manqué tuuti gën a baril jataayam ci dëkk bu ñuy wax maa yumba ñu koy wax baa foli mu waxe ne taba bu man baashara fi Libreville naqli li baa foli la daa taxawul muy jataay yoo xamante ni waa ahlu maa yumba ahlul xayba ñoo bëgg ak jàppandal ba kenn ku ne ci taalibe yi man fa teg sa tànk xam fa sëñ ba nekkoon ak lam fa def ak lam fa liggéey muy ku ne xam na ne Afrique centrale dëkk yu bari ay guerre la waaye dëkk yi nga xamante ne sëñ Touba nekkoon way fa xasida yii muy bu ñu waxee ñaari muqaddama yi di an nazmu wa nas ci dëkk bee di mayum ba foofee la ko waye waaye jaalibatul maraaxib bii nga xamante ni moom la ñuy jàngit ca barab boobee la ko woye soo demee ca jataay ba danga gis benn dex goo xamante ni foofee la ko sànni woon di toppandoo jësool waaye fa falawa ya doonte tàmbale woon na ko muy jasbul xuluub mawaaxibu naafi fi madaihi shaafi muy jataay yoo xamante ni mbooloom liggéey bii nga xamante moom la xaadim rasul liggéey foofee ci jataay boobee la ko def muy barab bu am solo la fa nekk ci ay xew-xew bari na waaye jàpp jàppandal ko ba ngeen ñëw ba foofee teg fa seen tànk ñu le barab bii day fii la sëñ bi toogoon dafay lu am solo lool moo waral eh, lii di mayumba ñun ñu koy wax waa xayba xaybatul bahriya kon ak cant rek ci tàmbali ba fa mu yem di ko dellawaat ci soxna ma Aïcha sunu borom yàggal ko fi lool muy jëwriñu xaadim rasul ci ni ko sëñ bi waxee léegi ci ñaari jataay yi di mayumba ak sarsaara mu def ci taxawaay yu mat sëkk ak waa kuréelam xanaa duñ def lu di ko sant di ko ñaanal suñu boroom yàggal ko fi lool lool ca mbir ca defal ko mbooloom taal bi yépp rek di jëkk ñaanal it sunu sang seex Muhammadul Muntaxa Mbàkke suñu boroom yàggal ko ca mbir kon sëñ xam naa kàddu yi du bari ndax ñi fi war a ñëw sànni ci ay kàddu bari na waaye suñu jawrin lañ bëggoon mu tëng kàddu yi rek jox ko ko waaye gannaaw ndigal la rek moo tax ñu gàttal ko. doo bëgg aas waa xam nga lii daa yëmbul te te at at mu ne daanaka sooy boo ma ne ci waxtu wi lañ koy amal benn yoon dese nañ boo xam ne sax suba lay am fee ca kër soxna Batoor Seck am nañ tamit beneen boo xam ne Masalikul Jinaan lañ koy amal waaye gannaaw fii mooy tàmbali bi te li ci des dama bëgg ñu bañ a yàkkamti soxna maa ngi samee toog. moo nu gën maam fuuf te moo nu gën a yaru te ab toogaayam a ngi nii boobu ba léegi si raf sax def ko donte li ñu koy yërëm yërëm Baye Modou Diagne mii yaakaar naa ku ko mag ci jataay bi amut yàlla na ko fi yàlla gën a yàgg barke Cheikhul Khadim léegi te kàllaam mënta ñàkk bañ a wax ndax li nu fi dajale moo koy wax du mën a ñàkk suñu imaam jërëjëf yàlla na yàlla fayal na la léegi nag du mën a ñàkk kon suñ kàllaam miy wax lim ñuy leeral ñu dégg waaye it xanaa dañ fay woo sëñ Jili Dramé mii ba mu ñëw moom it ngir bëgg a yëkkati xasida yi sëñ Tuubaa yi sëñ Mor Taalaa nii sëñ Abdoulahi Lo koy xasidaa ngi nii léegi te ñun amuñu lu dul xasida yi sëñ yi kon bu ñu waxee am ngont dëgg la sax dañ ciy jaarale liñ bëgg a wax rek waaye ku ne xam na ne xasida yi moo nu fi dajale ndax bu ñuy wax maa yomba sëñ Tuubaa la te siñ Tuubaa lépp ci mbindum loxoom la ko amee moo ko wax di ñun waxuñu ko kon du mën a ñàkk kon ñu ngi ñaan ñëpp ñu bokkaat toog tuuti te seen xaasim mii dafa am dafa am dafa am mébét ak yéene ca noonu ne daa bëgg ñëpp toog bu noppee rek ñu defar xéewal ñu xéewal te nag xéewal yi muy defar man xam naa ci dara gis nga soxna soxna ay samee barki sëñ Mbàkke ne maanaam ceebu jën lim ci man poulet bii nii am na am na bu ñuy wax kii boobu ñuy fajar moom ah 30 jours laa def 30 toujours mu togg ko indil ma ko bis bu set mu gën a bari gën a neex barki Sëñ Tuubaa yow dun yow yow séquñoo ak yow cant ak ngërëm waaye xanaa sax nañ laa ñaanal bàjjan dañoo bëgg nga ñaanalal na ko lim fi am barkeel te dolliku nag yàlla mën na ko yàlla na ko defal moom ñu ngi ko séqal ñëpp barke Seexul Xadiim waaw kay xaas na na ma wax maa yomb yomb la dem loolu ña fa dem ñëpp xam nañ ko lii bàyyi boole doon wax léegi ku ne xam na ne ki ko wax da koy waxantu Hmm? Hmm? ndax mooy waxi seen mag bi moo tax ma noonu ki wax yi lay béy du koy waxantu mooy xaadimu rasul magum Cheikh te mooy magum maami maay sa toog te mooy sëriñ bu mbag bi fii fi mbagg te mooy que Cheikh Ibra ba gis ko boo ne room nga ak jëmam jëbbal ko te moo dajeeg noonu ca ama jëy sa ñu xuus ci géej gi ba ca ama dag sa ñu dem gabon gi ñuy wax dem fa ñu naa ba te teewu koy durus di way yonen kenn la maa yomb yomb la dem am ndam lu sell di kaat def leen ko muy ilimaan ni jaam ñi njiit laa ngi dama ni maa yomba moo yomb la dem am ndam lu sell di kaat lambar na it lu sell di kaat yomb la dem am ndam lu sell di kaat def leen ko mooy ilimaan mi jaam ñi njiit laa ngi ku dem ba jeewal te jéeloo lenn jaali bokkam du seen mappandoo ñii leen ko maam yaa ngi waaye ku dem ba dawme dammoo deewoo rafoo te dawoo yow sëñ bi salaan ngeen ron gu ma gaa ngi jërëjëf Seck alaaji yal na yàlla guddal soo fan alaaji Seck yéen ñëpp wax leen allah ji yal na yàlla guddalu fanam te guddal sunu fan barke sëñ Touba jànkat yi man yéen rek laay bëggee yéen rek laay bëggee barke sëñ Touba dama bëgg jàngkat yi nu ñaanal leen nu gudd fan jàngkat yi yàlla nañ gudd fan bu ngeen leen ñaanalee ba noppi ngeen ñaanal ma man dama bëgg di teral jàngkat dama bëgg di leen teral ngir yàlla ak jëmm sëñ Tuuba moom rek laa bëgg sëñ Kàllaab ñëwul kuñ naa la dégg na kem Seex Bamba nee ko ko kuñ naa la moo di kemam laaj leen ko kooka ku kuñ naa la digg na kem Seex Bamba ne ko fu mu kuñ naa la moo dib kemam laaj leen ko kooka ku mu lu kenn gisul aw don xam sakkaa di xam fu mu tong ku naa la gis naa ko kookee ne ko kon anamu yàlla ko may lépp xañ kom kem ni leen manaam ku naa la maa dim kemam ne ko yaa xoromu ma waaye ko fab ab daram lal jóg ba julli mu mat te bëx xablawul xiblab sëriñ saa ngi ku dul sëriñ bàmba bu jullee sax ci diig dana diig bu dee sayaan dana say ab diir sëriñ baa ngi li tax ñu naa ko sëñ bu mag bi duy atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon sëriñ jëfam yaa ngi dëkkam bii moo mag jumaam ji mag am ngirum gën a mag magam ñu naa ko magum mag kon kay sëñ mag baa ma tagg taawu ka taawu diine tuubale woor tubaab yete leen tasaare seen pexe te moo di Seex Mustafaa Karimu ibnu Karim moo doon baayam ba bootaan mag ñaa xale ya ci nii ci sey seen ngor ga siiw na du sey meew fulaak fayda lañ nampale seen gone ya ci ndaw la raw ña fi raw réerut réyut ragalul moo xellu woon xëdde woon ndigal ya war tere fasu sëriñ bamba wee mu tënki woon jàjju ba la mu sawaa tinki war ba jiitu way jëlu ya jàngoon ba xam la fi woon lam xam di lee jafe woon yoon wii la aw bara woon soo woon ca teelu béya daa jóg ca njël di julli di ñuqi tey joxe njël di jàlle way faatu yey jàlle ña doon donoya daa bay di boolee ki bëy buub lépp jox sëriñam siisul sewul soxorul sowul bari fara dogoog dëggoog dëggaloon ak taalibeem la doge buumum jureel ga ba tax mu jommaloon fara waxoon na mag ña lu waay liggéey ba am ca ngërëm def naa lu raw loola fuuf muy bind maa addiya teetoon la bon te ña bon tuubloo ña daa dëkke mooy taax tax ci koo dajale yi miliyaaru mbaa junni ya soloon mu doylu boole dalli maandu yu dër daawul joyal ay mbiram ca xàmb yaag jinne keroog ba sëñ bi demee firdaw si dongo yër taalam ba fay nar a giim moo takkalaat matt ya moo dalal xel yi dundal xol yi fomp rangoñ yi fedd liwaat laxasaayam ñaw yu xotti ya moo waa murit yëpp defal leen duy ñu doon bëgg a jeex daasaat la doon bëgg a maax jubantiwaat roqo ya moo indiwaat sëñ bi cib dëkkam taxat damawul moo duma daan damawul deewul dawul kënuye moo yar njabootug sëriñ Touba gi kulluhumoo moo def ca ñoom la sëriñ Touba defal kenoya moo tax jumaa ji taxaw moo tax baraay bi gasu moo man ca tool ya manoon ca jàkka-jàk jukki ya fit com wagoog wegu muñ la téye ñanam yanuwaan te geesuwul gëstuwul ña koy xalaat fette ya dëngañ di wéy joowul jëwul jëyul jëyuwul jaasi dogom la dogee baras yaag pakke ya melul ne gaynde gu xiif ca noonu diine ya woon meloon ni am xar ci ñooñ lislaam ñu baax jikko ña bekkoor du tee mu di bég ràmmit du tax mu ragal rafle du tax amu raam fa wuntuwuur sériya tiitul tubaab faaliwul kuy xub mbaa ku ko xëpp xoful xeful xeexulit xuluwul ak comoya dëggoog Aba Bakar ak fitu Omar wa tabuk Ousmane ga njàmbaaru aliyin la def mbubbu ya mooy amirum sëñ bi moo tax noon yi dootuñu ree ak njàmbaar bu doon wataa Cheikh Moustapha yi pëne jërëjëf Seck wuyul sëñ xaasim sëñ alaaj sëñ kàllaam képp koo xamante ni fas yéene ngaa bëgg a dem ca Mayumba ci yan tànk ngay taxaw ak foo jaar sëñ Jili Dramé nga nga préparé bu sëñ kàllaam ñu daanalee nga ñëw aouzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim noo ngi nuyu sunu kilifa yi teew ci jataay bi yépp ah, di ziyaare baax sunu kilifa gi di soxna maam Issa di ko ñaanal gudd fan ak wér yàlla yàggal taxawaayam te yëggale ab liggéeyam ba fukk mu ko yéenee yëggale te nu ànd kook moom ndax moom daawa jiite liggéey ba ca Sarsara ànd ak nun liggéey bi ci mayum ba lépp di lenn noo ngi koy ziare bu baax a baax di ziare mbooloo mi fi nekk ñëpp waaw dikk rek di leeral ay kàddu ci maanaam nit ki naka la war a mën a def su fekkente ni daa bëgg a dem ziare ji Mayumba ànd ak waa caravane bi dem topp jaar jaari Serigne Touba waaw muy wàllu googu nga xam ni moom lañ nu féetale muy wàllu transport date bi nga xamante ni moom lañ ko fas yéene jàpp nag ci weeru juillet lay doon walla août waaye nag jàpp gu ñu date fas nañ ko yéene nag bu soobee yàlla mais buñ ko gëstoo ba war koo jàpp bu buñ ko jàppee danañ ko dugal ci panel bi defar ay flyers publier ko ñëpp ci réseaux sociaux yi ak tele yi pour ñëpp mën a xam date ba ñu ko jàpp ak weer wa ak xam aussi ñaata la nit ki war a jënde package am pour mën a dem Mayumba paquet la ñuy wut boo xamante nii li ci aju mooy dem bi ak dikk bi ci billet bi nga xamante ni mooy billet avion bi lay jëlee fii ci Ndakaaru yóbbu la Libreville muy capitalu Gabon ak bus yi nga xam ni moo lay jëlee Libreville yóbbu la ne ak mayum ba diggante bi nag dafa sori ndax Libreville ak Mayumba toll na ci huit cent dix-neuf kilomètres na ci huit cent kilomètres voilà loolu ay bus lañ koy defee muy bus climatisé une semaine lañ koy jàppit une semaine la ñuy jàpp maanaam durée caravane bi bu soobee yàlla loole nag maanaam montant bi bala ñu ko mën a wax nit ñi dañoo jàpp date bi waaye li nga xamante mooy formulaire bi nit ki li muy fournir ci ay documents pour mën caa participer dem ca dellu si ci jàmm ak salaam mooy photocopie passeport la ñuy laaj ak ñaari photo d'identité bu prix package bi génnee ñu ni package bi nangam la loolu ku ko xas joxe maanaam caravane bi moo lay yoreel sa dem ak sa dikk ak sa hôtel ba ngay dal pendant une semaine bi nga xam ne moom nga fay def ba dellu si fii ci ndakaaru topp jaar-jaare Serigne Touba yi noonu la mooy li nga xam ne formulaire bi nga xamante ni moom la caravane bi di laaj léegi nag caravane bi am na compte goo xamante ni mi ngi fii ci Touba fii ci jànnatu banque bu ñuy wax UBA am na ñoo xamante ni facilité nekk na ci ci kaw bu fekkente ni dañoo bëgg di épargner seen billet seen package bala ñu caa yegg numéro compte bi des na ko mën a publier képp koo xamante ni yaa nga fay def doo ko teg ci loxol kenn demalal sa bopp ba ca banque ba nga verse fa la nga fay verse yaa xam muy junni yaa xam muy cent mille yaa xam muy nu mu mën a toll jël sa reçu téye photo ko yónnee ko ci panel bi ñu bind ko ci sunu registre ba kerab sa package di mat jot ba dat ba jotee sa billet da fekk fa nga nekk yaa xam foo mën a nekk ci rëddu senegal billet yi léegi yàlla def na ci facilité ba nga xam ni jëru nit kiy déplacé wu naan damay dem dagg billet mën nañ laa daggal sa billet yónnee la ko ci sa whatsapp nga tiire ko ŋàbb bu waxtu jotee waxtu woon la convoqué nga ñëw Dakar nu toppatoo la ànd ak yow embarqué la wàcc yow Gabon ànd ak yow dem Lambaréné mayum Mayumba jaar topp jaar jaari sëñ bi ziare ziar bi won la barab yi yëpp li nga xamante ni mooy lii caravane bi nisër nag loola moom sëñ Seex Mbeng mi jëriñ ji leeral na lépp jarul ñu jaar ndax loola mooy wàlla man wàllu transport bi rek ci laay wax ni nit ki war a def ngir mën dem mayum Mayumba mooy loolu waaw bis buñ ca tollee daal formulaire yi li ñuy laaj daal mooy ñaari kayit yi photocopie passeport ñaari photo d'identité jënd sa package pare nga ci noo lay yóbbu delloo si la ci jàmm ak salaam nii lay tëddee bu soobee yàlla bis bu nu jàppee weer wi ak bi nag ñëpp danañ ko yëg ndax dinañ ko def ci réseaux sociaux yi nañ ko def ci télé yi nañ ko def ci ay flyers di ko séddale nit ñi man koy gis liir ko xam date ba ak weer wa ak waxtu wa incha allah li tax ñu koy jàpp ci diggante ñaari weer yooyu maanaam day tombe ak nooru Gabon ndax xam nga tukki tukki bu soree noonu ci ab nawet da dul neex day tombeek noor ba moo tax ñu koy jàpp ci diggante boobu day fekk maanaam taw ba taxaw mu nekk ci noor ñu mën a def caravane bi ci anam yi nga xamante ni moom lañ ko fase yéene te ñaan yàlla nu sëñ bi jàppal boppam dimbali nu boppam ba nu man koy def ay at yu yàgg di ko ànd ak mbokki taari bi yëpp ndax yombale leen seenu dem ñu mën a dem ba ziare maanaam barab yi Sëriñ Tuubaa nekkan topp ay jaar-jaaram loolu mooy taxawaay bi lañ fa nisër mooy li nga xamante ni moom la Cheikh Mbengue leeral ci barab yooyu yëpp muy taxawal ko fa ay jumaa ak ay daara ba képp ku fa ñëwati dooni fu fi sëñ bi nekkan dangay ngay daal di jàkkaarloog liggéeyub murit yëpp wasalaam jërë ngeen jëf. jërëjëf kàllaam waa Touba daal ku ci bëgg bokk ci groupe yeeg yi nga xamante ne am na groupe yoo xam ne groupe bu caravane la tudd. boo jokkook sëñ Alaaji Seck xasaayit wala sëñ Jili Dramé ñi nga xam ne noo féete Touba dinañ la dugal ci groupe bi nga xamante ni lépp lu mante am di ko xam soxna Batoor moom moo yore soxna si soxna yi nekk Sénégal moom it moo yore cellule bu caravane Mayomba bi nekk fii ci la ne waaw loolu dong daal mooy mbir mi ku bëgg a dem daal ci yoon wu wóor te siire bu yeboo nga topp ñoom sëñ Cheikh Mbeng mii